Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen de presse jàngeen jëf yéene kaay tey ku ci nekk ak fi nga fële réew mi quotidien moom xëy ak ñun ci li dal kii di Ahmed Suzanne Camara yéene kaay bi di ñu xamal ni moom responsable APR bi daanu na de ndax démb la ko waa sûreté urbaine daa di jëli këram gannaaw nag ba ñu ko auditionné ba noppi ñu daal di koy yóbbu gardaaw yi li ko waral du dara lu dul kàddu yu ñagas lool yi mu yëkkati ci ab plateau ngallu ko ci ndoddu njiitu réew mi Bassirou Faye ak premier ministre Ousmane Sonko looloo tax Vox Populi di xamal tamit ni Ahmed Suzanne Camara moom démb teg nañ ko loxo te sûreté urbaine moo ko def lu ñu koy toppee bokk na ci offense au chef de l'État waaye tamit ay kàddu yu mu yëkkati nga xamante dañu jàpp ni day gàkkal ay institution yu république bu Sénégal Vox Populi naka noonee 24 heures di ñu xamal ni moom Ahmed Suzanne Camara tey jii la war a janoo ak procureur bi Ahmed Suzanne Camara mi ñu teg loxo L'As Quotidien di ci jàngat ni Bassirou Diomaye Faye daal dafa mel ni ku nekk ci tànk ñi nga xamante ne ñoo ko fi jiitu ndax li muy jëfandikoo offense au chef de l'État di ci teg loxo ay opposant opposition bu Sénégal mel ni lu nekk di yeesalaat boppam réew mi quotidien li mu ci nemmeeku bokk na ci mag ñi nga xamante ne ñoo ca nekk mel ni ñuy xajal bunt ñi nga xamante ne ñoom ñooy ndaw yi ndax jamono ji ñoom ñoo ci fës lool bu fekkee ndaw ñi dañ ci fës lool enquête quotidien gis ni li ko waral du dara lu dul ñi nga xamante ne ay kàngam lañ ci te kenn déggatu leen bokk na ci ñi suñu naataango yi jàpp ni dañ leen fàtte ci présidentielle bi taxaw waa PUR naka noone Déthié Fall Déthié Fall moomee ci boppam L'As Quotidien di ñu xamal ni kenn xamul ana fan la féete ndax jiital PRP gannaaw présidentiel bi ba léegi kenn xamul ndaxam jege na wala sori na ñii di patriote yi APR mi ñëpp xam ni sori nañu nguur gi ana lan la ñuy xaar ngir opposé wu suñu naataango yu tribune yéene kay di laaj ba xam sax ndaxam parti Macky Sall bi dafa ragal opposé wu ndax jamono ji dañoo mel ni rek ay figurant ci géew politique gi wala bokk nguur gi fi nekk la ñuy ragal ñu dal seen kaw nguur googee ñuy xaar ci ñoom ñu topp ñi nga xamante ne dañoo jàpp ne dañoo lubal alalu askan wi l'observateur moo dikkaat ci kàddu yi nga xamante ne moom lañu ciy faral di dégg ñenn ci ñoom di ko yëkkati jamono ji muy xeetu communication bi nga xamante ne dafa mel ni dànkaafu la suñu naataango yi jox ci kàddu ñu seen xamxam xam màcc ci wàll wi ñu gis ni yile xeetu a bu ci mel ni bu Fadilou lu ak Pape Alé Niang baaxul benn yoon ci ki nga xamante ne mooy njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye Diomaye Faye ci boppam am li ko doy sëkk te loolee Sud Quotidien jàpp ni bokk jëmee ci wàllub dëkkuwaay wi ak li nga xamante ne moom mooy foncier bi ci Sénégal ndax nguur yi ko jiitu yépp lu ne daj nañ ko ci lu ne tamit indi nañ ko ni ay xeetu programme waaye teewul mënuñu saafara bile jafe-jafe beneenub jafe-jafe bu ñu war a saafara bokk na ci wàllub mbëkk mi la tribune yéene kaay fësal ñi nga xamante ne ñoo ca jota ñàkk seen bakkan wàññi ci lu toll ci ñeen fukk ak juróom ak tamit lu jege ñaar téeméer ñi nga xamante ne gisaguñ leen bile bilan moo tax le quotidien le quotidien gis ni li xew ca jëy ab gaal bi suux tax na ñi ci ñàkk seen bakkan bari nañu lool bokk na ci ay sénégalais ay gambien naka noone ay malien ñi ñëpp di ñàkk seen bakkan ci géej gi ngir wutali réewub tugal tax na ba Walf Quotidien gis ni dafa mel ni ndaw yu Sénégal ci boppam ñoom ñoo gëmagul projet bi nga xamante ne ñiy féete ci nguur gi dañ leen ko jaay boob ak léegi parc bu ñokkala ko baa moom bu yóbboo ñu jaay ko Le Soleil yéene kay moo xëy tey di ñu xamal ni lii nga xamante ne dañ ko boole woon ci patrimoine mondial te atum 2007 ba léegi mujj nañ ko dindi ci liste boobee nga xamante ne moom la ñu jagleel patrimoine mondial ndax melokaan bi nga xamante ne moom la nekkee donte état bu Sénégal namm na ci indi ay soppar ñi lu ñu war a soppar ñi tamit mu ngi ci port otonom bu Ndakaaru les échos du ñu xamal ni directeur bu bees ba daa dinay dàkkal bépp lëkkaloo bi nga xamante ne sekkoon na ko ak yenn ci ay groupe de presse groupe bi war a teewal Sénégal ci Jeux olympiques yu Paris 2024 yi Rewmi Sport dikkaat na ci ne moo jëm ci seen programme ndax di escrime samd gi la war door compétition bi laataa ñuy door compétition yi record yéeni kaay di ñu xamal ni ñoom athlètes yu Sénégal yi démb jot nañu raay ak réew mi ci loxol jëwriñ ju ñu dénk wàllu tàggat yaram moom Khady Diène Gaye di sàkku ci ndaw yooyee ñu fexe ba wane ci kanamu àdduna ana lan mooy doomu sénégalais doomu sénégalais bi di bulaay Dia nekk ca Salernitana stade yéeni kaay mu ngi ñuy xamal ni jamono ji ñaari club ñoo koy yootu muy Bologne